يغيني نعم العفيس الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قلبي تليني عني جلا سلمان كانت تعاوقني وبالهدى جاد لي حقا li ñu bëggoon a wax rek mooy wax leen programme bi nga xam ne fii noonu la noonu lañ bëgg mu tëdd bu ko defee nu mën a teel a yeewi ku ñëpp dem neppali ko waat ñi nga xamante ni war nañ foo jël kàddu fii ci waxtaan wi mooy imaam Ndour mi nga xamante ni moo nekk fii imaamu Montagne Sainte comme imaam Massayer Fall nekku fi bu nu noppee dinañ doon sëñ Cheikh Mbeng mi nga xamante ni moom mooy président caravane Mayumba bu sëñ Cheikh Mbeng waxee ba noppi dinañ doon sëñ Cheikh Xaadim Fall moo it mu indi ay kàddu bu nu noppee ba no bu Cheikh Mbe bu sëñ Xaadim waxee ba noppi nu jox sëñ bu Bousso mu jël kàddu sëñ Cheikhouna naa bu soo bu waxtaanee ba noppi nag war na nu jox sëñ Daam Mbay conférencier mu jël fi ay kàddu wante kàddu yi nag du yàgg interv ñuy intervenir du yàgg kàddu soññi rek lay doon bu sëñ Daam jëlee kàddu gi ba noppi sëñ Daam Mbay nu jox sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xamante ni moom moo fi teewal sëñ Muntaxa ñaanal nu soññiwaat nu pour nu pour nu tàmbaliwaat liggéey bi mu jëm déwén léegi nag comme Maamoor sëñ Maamoor a ngi nii sama wet Maamoor Mbaay jàngkat yi nu nu leen di ñaan képp ku nu jox kàddu gi rek nga respecté juróomi minute rek barkeelu bu ko defee ñëpp mën a jàng bala noo commencé waxtaan wi salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ As xam naa sax dinañ ko def ndax ñoom ñëpp a sonn fi mu ne rek moo leen moo leen moo leen jàpp waaye yaakaar naa ne tey li nga bëgg da nga leen cee dimbali ndax koo ci ne woon da ngay fanaane fii mooy am problème wala nga ne ko di nga jàng deux heures de temps wala trois heures waaye comme juróomi minute rek la ne yomb jubool ndax ñoom ñëpp sonn li dal mbooloo mépp leen dal kon ni ñuy jox rek nañuy def rek de jox suñ son yi bu mbaay mu ñëw nii moom itam jël juróomi minitam ñoo ba gën a bàyyiwaat barab bi xel rek ci kanam tuuti sëñ Cheikh Mbeng dana nu wax li fi xewoon ak sëñ Daam Mbay ndax fii loolu sëñ Abdou doon nettali ba murit yi di tàggoog seen sago fii la amee woon muy teen boobu nga xam ni tubaab gas nanu ko ba mu xóot ñu taal ko ba muy bërëx ñu lal ci dara daal di ko ne demal nga jaar ci waaye dégg nga ni ko Sëñ Abdou Lahad waxee mu ne fa lu yàgg waaye toogul ba mu yàgg rek lu dul soxna su tedd ja ca poroxaan ne caq ay mbaggam rek sànni ne ko génn liggéey sa borom loolu Sëñ Abdou Lahad ko wax loolu nga déggoon nit muy pendre gi ñu ko doon def fii la woon moo tax ma ne nu gën a bàyyi barab bi xel rawatina nu gën a teewlu bisimilah suñu champs yi. dafqi wa jalbi qimmati lhaadi lamin maha allamini wallaminu la haminu dafqi wa jalbi qimmati lhaadi lamin مع اليمين واليمين لا همين وجهت لله كتابة الشيرين وخاد لي خير الخلال والفنون سألته وإنه المنان دورا بها تغلو لنا الجنان سألته وإنه المنان دورا بها تغلو لنا الجنان يا من مهل اقدار والخطوبة مني تقبل البناء عتوبا يا الله يا العرس يا قدوس يا من له تقدير وتقديس سن دهرك الدهر عني لك الدواري يا باقي الكون كالجدال أنت السلام إنك المنان رحمن يا رحيم يا حنان salli wa sallim wal tubaarik sarmada ala nabi ka rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi wal taqbali min binahi wal tuqasin qidbali watfi lazina qad banaw aw naqalu hamtilatil yawma aljawa ma yasalu watfi lazina qad banaw aw naqalu hamtilatil yawma aljawa ma yasalu yallaahu يا عليم أنت الله ويا خبير ما له أسباب هب لي من لدنك ما نهيب يا من له عمر أنت رب وعافنا والتفنا ونجنا والتفنا وكلنا يا ربنا وعافنا والتفنا ونجنا والتفنا وكلنا يا ربنا وعافنا والتفنا ونجنا والتقنا وكلنا يا ربنا بحرمة هادي عليه صليا وسلما في سحبي وكليا بحرمة هادي عليه صليا وسلما في سحبي وكليا لكن بكل سرمادا وجه المسير رياسا جوف الفرا للوارى مثل المغارين لكل بكل سرمادا وجه المسير ياسا جوف الفرا للوارى مثل المارين سرافتها جلي من يفدي جميع بكم وقد تواصلت بالممدوح في النون أخلى البراء يا واء سهوهك رميها عند الذي جادلي بالميم والنون هبي ووضي وارل وعني ومحمداتي لمن الحباني بما قد فاخ باسنوني نبيك المصطفى بسالين معا وكن بكل في باد ومكنون ñeenti min ñeenti minute yu doy na benn minute bi def naa ko di Sëñ Tuubaa noo ngi ñaan ci doole Sëñ Tuubaa xasida yi يا أيها الصبيان لا تستقلوا عن الهدى وبالقلوب استقلوا يا أيها الصبيان لا تستقلوا عن الهدى وبالقلوب استقلوا يا أيها الصبيان لا تستقلوا عن الهدى وبالقلوب استقلوا فاستقلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس السقام walaazimu man laa yazaalu abida li rabbihi ilal huda wa qaida fa kullu man baadara waxta siqari ilal huda saraqa waxtal kibari wa man tadaaraka allazi qad faata min allaha wa amara al awqaat bi tawbatin nasuuy wal ixbaali ilal ilaahi faaza bil kamaali haakum nasiihati lakum fa tarbahu dunya wa uxra ma qawmin aflahuun laa tastari dunya bi uxra yaa fataa من باء نورا بدجا فسيندم لا تستري دنيا بأخرى يا فتى من باء نورا بدجا فسيندم سان إلهي بالمناجات وعبدا أغنى يدي عناتي دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وأولياء خسيدتي فقد خسائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام قصيدتي فقد قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناسعا وأساء الملك مع التواجع النصارى الله لي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله moom la góor yàlla yi rawee laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah am yàlla moo gën am leneen lu dul moom moo tax Cheikh Ibra nga am yàlla faal andil nu ay koom si xibra faal yaa man rijaalu laay ay fanaani cëppi yàlla yay durus quraani si xibra faal yaa gis la buur làq ca lawxil mahfuus ak lawil maknoon faal yow taloo noos xemmem la moo tax ma doon sa bàyyi faal fawu ci baatin lamp yaa nuy suturaal addee borom tuba bi nee na sëñ Cheikh xam ne li ko ci neex mooy nee na daa sol mbubb ca maayom ba ne ko yow laa koy rafaatale ndax yelloo nga ko ah am nga lu rëy jërëjëf nee na loolu da koo bëggoon a wax fàtte ko yaaram loolu wàññiwul dara ñu boole déglu xam naa kuy barkeerlu rek dangay woo kii kii ndànk rek te bañ koo wax eh kaay bu delloo ma ci kawit jarut nga ko koy wax ndax soxna maam Issa mérito na lépp sëñ fa sëñ Moussa Faa ak mi lay bàyyi moom it mu def yéeneem allahu taala al akramu huwa rasulullah alayhi salaamahu allahu rabbul alamin al akramu muhammadun mukarramu lillahi hamdi maha sugri sarmada ala wasilati ilay ahmada lirafe samai duna amadi hamdi wa sugru binhima samadi inna lasi maha liqaa jeewali inna lasi مالقا جا ولي لو ندائي موقنا بيا ولي هدى الذيما إساءة دري هو هدى الأكرم مجري الخضر تنسيل من مني لو الأسكار ما لسي وقع في الدكار علمني في فلك المسون علمني fii fulki almasoon fuyuudu fii fulki almasoon agramani laaw ladaa konaakiri agramani laaw ladaa konaakiri bimaa kafaani jumlatal manaakiri ilaa siwaa nahwiya xilli xalbasaa fi aami jeysasin ladaa karambasaa agramani agramu hinda daawumi bima bii qaniitoon tasaawumi ilaya aw salala daa li bër wali ilaya aw salala daa bër wali qili wa hibbi muna kullu wali lii saaraan kiraamu war rijaalu fi ma li ahdaa yi bii majaalu ajaabanil mujiibu henda baafali bi ma bihi na wartu xayra ma fili kafaaniyal maaniyo henda galwa wa bada an daa owal balwa radda liyal moyeedu haama hël sasi ma dalaani xablu haama jey sasi malakanil maliku wal maliku sirran bi saalamani muluuk maa lasi kaana يودي للكدر قلي ويبيع لجي يجري قدر هباني الباقي بما لم يكن ولا يكون لسواي بكني ملكني دنيا ملكني دنيا ملكني دنيا وأخرى الله سولي ولا إله إلا الله ملكته xattu yeddi mutasiba wal xattu lii xayran kasiran kasaba dalani allahu ala xayril wara wa qaadali xayrul baraya suwara hadani lasil hada muntabisa min ahliha fasile muntabasa walan mabiyati li xayri saati wan qaadali ansama fi la saati رد لخير نقرا كاترادي من قاد لهائي أنسم في أغرادي سعادتي قد كتبت بلا صلب في أبد ولا وللهدا غلب ولا الهداية لسواي خاسرين مؤيسين من جنابي ساخرين لم ينهني اليوم ولا ينهو غدا لي سوى ما لي يديم رقدا إلى سوى نهو انتهى الشيطان wali safal ma wal awtaanu lam tasfari leen daa la siina rasadu wa naddimoo wali si waaya xassadoo laa yaxturu dëhra bi baali man xulex xastu asaaya wal mu naa lii tantalex agrama nii agramu hendal muxriqaat bi xayri magrin bil mu naa wal xaariqaat hibaatu man laysa loo kufaan ahad ilaa siwaaya alaa siwaaya man jaat hababtu min fuyuudi maa il xaybi isaaba xayre min xumuuri laybi lam yen wu nii nda jasaa'iril xumuur xayrul fuyuudi sil baraaya wal umoor yaqiiniyal yaqiinu sakka baadama yaqiiniyal yaqiinu sakka baadama li qaada rabbiya masaayal xudama hadaaniya laahu waabqa lii wudaa wali ilal jinaani kulliya hadaa sa'altu bi haqqi wajhil karim saadatan bi ismatin laysa tarim lii madda ajruhu wa ajral muntaqa fi ramadani wa rabbi birtiqa ansanil baaqi wa humri sakara wa inda jundi falaahi sakara ma lasi bayni wa bayna qawmil fasiqin kaana saala lawmi ana la ni ma lam yunilu xayri fii wa fil maxdoomi usni xayri hadama maliyan bana min al kadar wa innahu bisni yujri al qadar subhana rabbika rabbil izzati hama yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi walhamdulillahi rabbil alamin dufin irtada wa hujjatan ala mukhalifin khada وحجة لمن بدوف ارتدى وهجة على مخالف خدا ومطلبا لتاحة الرجيم ومهربا من تاحة الرجيم ومطلبا لتاحة الرحيم ومهربا من تاحة الرجيم ومسلكا لسبل ابتداء ومطلقا لسبل ابتداء wa maskanan li jalbi kulli xayri wa maskanan li dafi kulli dayri wa sababan li fatxi xayril xaybi wa sababan li dafi dayril aybi wa arda wajal arda risqin wa amaan wa rahmatan wa saahatin kulla awaan yaa daafi al aswaay wal akdaari bil musawa bil musawa bil musawa bil musawa bil musawa bil musawa fa kulla saan daari واغفر لمن بنى بنا عار فيه واغفر لمن أمرهم بالجميع ولجميع من آنوا على بنائها الذي بفضلك تلاه واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنا ساعة الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في الحسر واليسر على التوالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفة أسيت بقلب يقسو واللي يهب فيه دعاء يسمو مع الخنات بنفس تصبو والصوجة سالعة تهين على تقى والبريا مهين وأسبلا كنفس ذكرك أبد علي مه جملة آل يا سمد واضرب زراد خات إبسك على الدار وما فيها جميعا مسجلا ولتدي الجميع في المكنون خيبك وبيمنى عن الفتون وعن سرال الخلق والرزايا والجن والصيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الخفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وسلخ وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجل دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتسفيم وجل مسكن الخروج من ظلم وجل مسكن الخروج من ظلم للنور وكف عنه كل من ظلم وجل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداء وجل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسن والتام داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب سربها وأكلها وجل حريمنا حريما آمنا وكن بإنسك فيلا دامنا wajub laha alxayra min aljihaati assitti wakfiha an ilaafaati hutni an ishaytaani yaa jaliilu wa maskani wa kullu ma ahoolu yallaahu yaa afiisu yaa sal amri yaa faayixa alxalqi maan bilqahri nafsi wa diini summa ahli walwalat nafsi wa diini summa ahli wal walad nafsi wa diini summa ahli wal walad nafsi wa diini summa ahli wal walad ومسكني لك وديهة الأبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيما عن نزر في الرزايا وازرب عذاب نار عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقاربه في الدين أو في الدين والجانب فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني للأحد وليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني للأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي بسن الختام عندك barke Cheikh Khadim Matlabul Fawzayni bi nag maa ngi ciy fasal Serigne Cheikh Khadim Fall mi suñ borom yàggal ko fi loolu rek laa ci fas fasuma leneen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 rabbi auusu bika min hamazaati sayaatini wa auusu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taalaa alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima muqaddamatul amdaahi fi masaayal miftaax salla wa sallama alayhi al-fataax bi aalihi wa sahbihi كما الملا الأقداء اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من فيه وبما لي سلامان وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاسي لم داحمنها بالمكتوبات إليك وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين wa basir kulliyatu alayhi salaatu wa salaam bi kitaabatiha wa qiraa'atiha wa nadri ilaa xuruufihaa iz kutibat aw quri'at aw nuzira ilayhaa ilal jannati allatii uxida al-muttaquun وجلاك يا مما تتقنا في حورك الحين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وسقت برب العرش سر الجود والعبيد مع المصطفى والله لي مخلد سفي وسقت برب العرش سجود نفي مع المصطفى والله لي مخلد سفي وسقت برب العرش سجود نفي ما المصطفى والله لي مخلد صفي وزغت مع المختار بالله وحده عليه السلام من بي قد معلق وخاني في سوء ولي كان بالمنعم ولي خاد إخلاصا بي قد مات بي ولدت خديما في امتداه محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نبي ولدت قديما في امتداء وسيلتي علي سلام الله معلي سعابتي ولا كل ذي من وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق لا يسر وجيه وسول واسل واسع له زياد بمخناني الله عن قصيد وسيم ووهاب وزي وسيلة إلى خير رب سكروا قد معاله وفي كريم واحد وعدو أتى بلسوان ما دسر الجور بالرهو ولي النبي للبرايا رسول ربي والمقفى وحزبي ومن عظم والله لي كان بنبي وسرت بباب سرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمكاشف أنا مريضا من كل دار يكله لا ساب من قلبي ويمله إلى إردان ساب النفا قد قائدا لهم شرورا متين بقمتي مزرو أحبتي الدارين ساق النفا بهم إلى لقيكم لمن ليس يفرغ عبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد نوقوا الكفار والكل جزه وشهد على الأعداء مشابيه في الدجال وكل سجاء رسز الكفر ويده وجود على الأعداء مذابه بالرجاء وكل سجاء رأس ذي الكفر يجذب وجود المدي يقضي لهم ذات جرم يخرج فأن يبكي ويمات جره أيا خادم المختار

شراه نادر دي تهزأ دين الزغائز سازو أفز بمن دابن أفان ذا الحياة لو نور ثم نور لمن مبوب أبو سبطي المختار وقال على تقديرا يوم المجرم أسحت رسول الله إني قديم أسحب رسول الله وصل غادا لمولاي وحده قديما لمن أدركي كلة السنون نسبت بنا من بلا قواد لفتنا لا خلق ولا ندين نويت الدوام أسير وسور قادما لخير الوراء منزيل مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح huwa muslihun bashirun liman lillahi bil aqli yuzinu nabiyun adibun su hayain muazabu nazirun liman bil kufri wa shirki yulinu nazirun bila qisin alimun muallimun سقي بلا من كلاما يلين نجيب نجيب نازف وهو نازف هو الآمر نايل ذي الخير يؤمن نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيء مناس وهو ماء ومسن نسيب نسيب سو حتى يا مقدم huwa naasu wal miizaanu liman mumakkanu nabiyul ozaanu aziimu mubayyanu huwa al-Mustafa al-Muxtaar wa huwa al-muayyanu nubuwwatu qabla al-baraaya qad injalat loo saqiinat bi diini yuxsanu نجيد مجيد موصل من لحمتا نجيد مجيد موصل من لحمتا معلن ومبدال ومخل ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا حد لكوني قديم المصطفى تتبين نسيته بالسر والجهل لي بدت بي غاد للرحمن ستا يوازن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى خير نهري ساق من ليس يحسن نما لسوانا بالنبي لا يوصلا وسيق إلى خيره الذي يتكان نحى الوائد القهار عن الإلاب مرادا ومسنى البروس مليون نفك به أرضا عزايد وسفت عليه السلام خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نشهد بكوني عبد ربي خديمه وسفى بي أمري وطار مودن نويت بما

هادي وبني توكل إلى من كفاني السوء والضر والسكاء كفاني حفيظ مانع جملة ندعى ولي قال عبابا في مسفر نسكا كتبت وقفي سفر ربي مغاتبا لمن حبه عنك الكريس ساطنك كرك وقتلتنا يا خير مرسل عليك الصلاة الطيبة جرى المسكان كزت الدنيا الله ستنا عليك السلام عرض يصدر الكنكان كروبي يا مفتاح حنين الأوطان وقبل إذا زمزهت وجعل ولبكاء كسوت كما أثبت طلب رجال ومن كبي خلت يا خير من فكا كسرت تجا قلبي وكلي حميته بإذن الذي مهما اشتكى مشكل الثار وجهك تصفيني بأعتاب شارة ولي قلت بين الأمجل البحر والفرقان كوسك تصيني بأعتاب شارة ولي قلت بين الأمجل البحر والفرقان كتابك ديني وهو كلي ومونسي هداني به هادي ولقي به زكاة كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به لدى والذنب والسقاء لمولاي حبلي ووالي مع الكبلى ولي قطب بين الأخجل البار والوبلى له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواهب المغني الذي كثر القرى له شكر مني بعد عمدي مخاطبا لمن جوده لقال ما أخجل الأتعاب لك سقوى التقديم يا خير سيد لدى الواحد الفخار رب الورى جل الله

والسلام لبس ثياب المجد والفضل والولا وفيك من الأخلاق ما أعجز الله لقيت من الأعداء ما ضل الآمال حلا أنك الليث الذي اسمه فالله لمن جاء يقي منك ليلا مع الهدى عتايا بسير تتبع الفار والمحلى لمن خاده جهل لكم ذات جر عذاب شديد يورث البر والفتى لك دار أخي من إلهي صراد عليك ما تديم يا من مع الكبلى على الله من لي قاد بالمصطفى سرعا توكلت عبدا قادما لا أرى سرعا علي اعتماد راضيا عنه قادما لحب به أسرى وقد جاوز السفعا على المصطفى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لغاد ما خلط الوصال عليك الصلاة لا أيام يا خير متبعات بتسليمي يا من حد الفضل والفراء عليك السلام ممنون من كله كما بك لي غادا المزيات والرجعان xalaw taxti la an laa yujaarika xayru man law siqwatun xad tuujibu laana wa taan yaati bi man olaaka abdan wa sayyidan xalilan xabiban qaala li dikru xataa xataa yaa fi barrin wa bahrin taquduni إلى شكري مستيبا النص والمرعى حجائب في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع بك فاسرعا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سفور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسرور وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقبض يا خير أبدا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 moom nag sa wéy yu tedd la si Moussa Fane ba yàgg ñu teg am njàngam ci rajo Daara ñu am jàngam si boole si Moussa Fane daal na fi kenn ci mag ñu ne ko mi ngi fi ci jamono jii la mooy nañ ko wuyu ñu ne ko yaa jàng ko xam ne maanaam bu ñu koy dégg mu am na moo jàng suñu ko tàmm waaye ñu dañ si Moussa Fane ba pare sëñ bi daal jël lu mu xamoon lu mu ko lu bari mu jox ko ne ko damaa xam ne bu Sëriñ Tuubaa ñëwaatoon jamono da lay jàng loolu murid yi yëpp parce que mu taxaw moo yëgal murid yëpp Sëriñ Tuubaa